ñaka si loone dégg naa la. yow nga jóge sa combat wala gis ñu la dégg ñu la dégg naa da ngaa demoon championnat Qatar. waaw demoon naa. waaw. daa mel ni Qatar neex na. trop sax trop ah. waaw. da ngaa leer daa demoon championnat Qatar. caagin leer sax xam nga rek man instant yii loo ma mën wax lu adversaire bu ñëw bi rek man waxuma dara. te na. ñëw na waaw ñëw na waaw ñëw na na yankaw ñëw na. ñoom ñaar moog yankaw championnat Qatar lañ nekkoon. waaw xam Qatar di ko tuwek. xam si lamb ji fii mënoo am adversaire da ngay dem si mbapat yi nga dem bëri ji. fi nga arara. non arara mooy loolu moom champion la quoi xam nga rek lamb moo demee noonu quoi mbapat la rek. voilà yéen ñaar ngeen tase. ñoom yoon lañ door man benn yoon laa door a moom benn yoon laa ko daan. da nga ñëw Ndiaye Ndiaye daanu si raw gàddu bi demi finale daw bindu poids laissé jël ko. waaw dem jël ko non ki ma daan lese bi sax maa ko mën su maa ngi door dug dugg ci combattre yi quoi xam nga rek ak condition bi amoon condition quoi maa bëreel ba bàyyil saa bopp ma door a ñàkk quoi ci laa commencé récupérer waat ne ma na damay jël lese bi quoi ndax lamb yi ñi si nekk moon mënuñu ma waaw. ma ñëw bër premier tirage laa daan ben jool fàtte naa sax tur bi quoi après ma daan deuxième tirage laa daan arara ma daan ko. nga ne saison bi ñu génn mu nekkoon meilleur lutteur. waaw loolaa dégg quoi moo jël meilleur lutteur quoi waaw si raw ga si si si mbapat yi quoi mooy champion la nag mën naa bëre trop dama kaa waaxu rek waaye champion la de ndaanaan la ndaanaan la mën a bëre la ndax kale yi ma ko dóor yëpp su ma doon bëre première kale laa koy daan bu yàgg. waaw teegi teeg rek te lu ma teg da gis lu ma teg da koy gis quoi mën naa bëre champion daa mën a bëre waaw rapide laa ko daane quoi waaw waaw fi ñu toll nii nag si loo xam xaaruma dara lu adversaire yi ñëw rek gars yi koo si wax ne ko ñagas mu bañ koo si wax ne ñagas mu bañ nu may def may toog xaar rek war na yàlla li ñu wax ci adversaire mat na neuf koo ci wax ñagas de ñan bëri na ay ñoom anaconda ñoo ngi fi ñoom Begaay Jocom Balde xam nga ay ñoom booy piir ñoom ñëpp wax na leen gars yi koo ci wax mu bañ ay ñoom Baba Jaxal xam nga ga bëri na gars yu bëri ñoo ngi leen di wax ñu bañ. petit di dox sa diggante réparé. ko kooku du jël avance réparé moom ay neexal la fa wax mais du jël bu desul moom moom wax dama xaaral ma laaj grand bi xaaral ma laaj danse mais du ma sa jël ñagas xam na bu baax. gis na ma gis na moom may bëree côté Gambie Kaarang gis bu baax a baax voilà kon xam nga ne ñu sama avance wóor na yàlla ñàkk adversaire moo tax ñagas toog ba ba léegi mënul bëri wóor na yàlla mais bu ñu may indil bu baax ku ñëpp xam ah toj comme man ñu bëree. ñi nga tànn fii nii bon moo la si gën a. ku ñëw baax na ku ñëw baax na Jacob Baldé bëgg naa ko trop ak ak Anaconda. Jacob Baldé Anaconda. da nga taamu ñaar damaa xam ne dañuy bëri ay bërikat lañ quoi te lool moom ma arrangé te laam xam na leen quoi. si at si yi nga jugee nii. waaw ak si ma jógee di ko waaw loolu moo tax nag ma bëgg koo xamante ne ni waaw mooy loolu quoi favori la ko si làmb waaw. yow favori nga. fa du ma favori sax mais ñooñu la bëgg ñu nekk favori quoi. dama bëgg non non ma instant yii defaguma dara si làmb damay door a door defaguma dara. bilaahi li may bëree sax bëreeguma ko fii li may bëree mbapat bëreeguma ko fii ci arène bi. damaa bëgg di bëre ba amateur yëpp kontaan ba ma jox leen li ñu am ba pare ma door a bëri daan voilà. buñ doon daal su ma déggee Jacob Baldé nga bëgg wala Jacob Baldé Anaconda ñooñu sama sa adversaire suñ mënul ñàkk ñu joxo Maguette Seck waaw bëgg naa de billaay wala xeeru ngor samay adversaire rek ñëw si lam ji mais gars yi dañuy taamu quoi xam nga la moo tax yow la moo tax maanaam yow fi ñu toll nii tànnoo yomb lu diis lu yomb lu yomb amu si ji ku bëgg a tànn yomb ku ne da dem xooli fële nga man tànn wala yomb loolu laa nag man ñagas képp mu am ñaa day dóot billaay bu sa loxo jóg ngay daanu wër na yàlla bu sa loxoy jóg ngay daanu ah. waaw. xam nga nag man. loolu dëgg la waaw dëgg la moo na ma bul dóor quoi bu ma sañoon doo dóor benn doomu jàmbur muy muy lii quoi koo ci mën a jàpp daan ko jël bu gaaw nga daan. voilà non ku ku jël décision duma ma ma jël décision daan la mais bu dóor yi méttee moom ma fay moom. ah, ah non après pare naxtaan ko rek ne ko xam nga rek ni mu <laughs> kuy saf quoi mais waaw. waaw ziar bu wér waaw ñoo far kontaan ceebu xonk